Salim Edouard Mendy capitaine bi di Kalidou Koulibaly ñancoo Sadio Mané Idrissa Gana Gueye ak ñeneen joueur yoo xam ne tuddul leen waaye tamit nee na bu ñu génnee fukk ak juróom-ñett yooyee ba noppi dina des juróom-ñetti joueur maanaam huit joueur yoo xam ne ñooy mottali liste boobee juróom-ñett ñooñee nag mën nañu caa lim Ismaïla Jakobs ak Pathé Ciss bu dee Ismaïla Jakobs moom latéral gauche la ma ngay football ci AS Monaco moom demam lu war a mën a nekk la ndax Saliou Ciss amul club te soo moytuwul du dem ca mondial ba kon Ismaïla Sakho su mën naa dem jàppale Fodé Ballo-Touré ca wetu càmmoñ ga bu dee Pathé Ciss moom milieu de terrain bu mën la muy def la te ma ngay doxal ca Rayo Vallecano kon moom it ñoo ngi koy séentu ca list boobee loolu la surnal bi xam le Iliman Ndiaye it moo ngi ci journal bi moom nag wax na ca mondial boobee nee na moom mu ngi liggéey lu rëy ngir équipe nationale bu Sénégal waaye demam ca mondial ba nag suy ñëw da ñëw naturellement waaye moom daal mi ngi liggéey liggéey bu rëy ngir jàppale équipe nationale bu Sénégal national beach soccer bi tamit ñoo ngi ci journal bi tey nag la ñuy final coupe d'Afrique beach soccer bi Sénégal mooy jàkkaarloo ak Égypte match boobe treize heures et demi lay door kon gaañi xaar leen ko te ñaanal équipe national bu Sénégal mu jël ko su ko jëlee nag mooy doon juróom-ñaari yoon équipe nationale beach soccer bi di jël coupe d'Afrique bi kon ñaanal leen goney Mamadou Diallo yi ñu am ndam lu yaatu ci kaw Égypte mats boobee treize heures et demi lay door ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futurs Médias fekk fa yéenekaay ministre des sports Yankhoba Diattara la fësal ca xët wu njëkk wa xam ngeen ne nguurug Sénégal génne nañu budget bi nga xam ne moom la ñuy yóbbu ca coupe du monde ba mu ngi toll ci fukk ak ñeenti milliards maanaam quatorze milliards journal bi nag dafa samp ab laaj yéen it ma leen koy laaj nee na est-ce que bu ñu demee ca coupe du monde ba ak xaalis boobee saytu gi war dina ci am ba gaañu du ñu nekk foofee di pasar pasaree xaalis bi di yaata yimbee ci xaalisub samp comme laaj waaye tey jii tamit équipe nationale beach soccer bi day final bu 13h jotee Égypte lay jàkkaar lool bi ñëw na ci surnal bi tamit ñëw na ci lig 1 bu Sénégal tey jii la ñuy dugg ci ñetteelu bëccëg bi maanaam troisième journée bi match avancé la nag maanaam match bu ñu jiital bu 4h30 jotee Guédiawaye mooy jàkkaarloo ak sine woor ñaari club yooyee nag li ñuy wër ñoom ñaar ñëpp moo di kenn ku ne sa ndam lu njëkk ci fàttali ñoom ñaari club yooyee football nañu ñaari journée kenn amagut bit kon kenn ku ne ci ñoom sa bit bu njëkk ngay wëri sa ndam lu njëkk tamit ngay wëri match boobee nag tey jii la bu quatre heures et demi jotee ñu jugee Sénégal wutali Londres Angleterre fekk fa Sun Sport que mu fësal wu njëkk wa nag ab boxeur la waaye fàttewul football bi Cristiano Ronaldo tamit moom ak waa Manchester United ñoo ngi ci journal bi li ko waral moo di Cristiano Ronaldo ginnaaw ginnaaw jafe-jafe yi mu amoon ca Manchester United jeex na entraînement yi door na ko démb bi ñuy jàkkaarloo ak Serif dafa départ titulaire doxal ca match boobee dugal ba noppi jéggalu supporters yi ne leen ginnaaw ay jàmm mën sa Manchester United moo door Serif ñetti bal ci dara jamono jiina nag nañu ca huitième de finale ya doomu Brésil bii di Antony moom yeggaliwut match boobee ndax ba ñu mi la ko Eric ten Hag génne li waral ñu génne ko moo di fomm daa bari lool bi war caa jëmbat ful la du ko def nekk di ca fo loole moo tax Eric Ten Hag ma koy tàggat ba ñu mi-temps la ko génne waaye yogoon club mi tàggat Liverpool it moo ngi ci journal bi moom nag xam ngeen ne keroog bi muy jàkkaarloo ak mën Manchester siti bu Pep Guardiola match boobee tàngoon na jër te moom sax match boobee amoon na ca carton rouge li ko waral moo di kaddu ya mu doon joxar bi jëmale ko ci arbitre de touche ba kaddu yooyee nag ña ëmb Premier League ba càmbar nañu ko nee nañu kaddu yooyee tegginewul ba tax na sax amande nañu ko trente mille de livres sterling moom yoogoon club loole lay jox ña ëmb Premier League ba. ñu jugee Londres Angleterre wutali Portugal fekk fa Oxogo Diogo Costa la fësal ca xët wu njëkk wa moom mooy góolul wa Porto gone gi nag surnal bi nee na ko yaay numéro un jamono jii ndax gone gi la muy def mën na ko clubam boobee di Porto mi ngi leen di jàppale bërki démb ba ñu demee fekki club Bruges gone gi match bu baax la def ndax match boobee Porto da ko soxla woon encaissé wul but te waa club Bruges amoon nañu penalty mu génne ko. am na benn ancien entraîneur buy wax ci gone gi yoroon na ko foofee ca Porto nee na gone gi nag li muy def mën na ko te da ciy jëmbat fulla te nee na bu amee match club bi mu war a jàkkaarlool attaquant ba fa gën a weex maanaam bu doon jàkkaarloo ak Bayern de Munich day jël Sadio Mané teg vidéo am jàng Sadio Mané xam fi mu mënee ni muy mbëkkee ak ni muy dóoree ak ni muy defee tiir cadré loole lépp lay jàng ci attaquant bi mu war a jàkkaarloo loolu moo tax su Porto amee mat su gone gi daf cay ràññeeku lool loolu nag ki ko dëggal moo di vice président wu Porto bi mi ngi tudd Victor Baya moom nag daan na góolu ci Porto googee nee na jamono ji Diogo kosta mooy góol bi dàq góolu ci àdduna loole la xam xamle moom vice président bi ñu jugee Portugal wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca kaay yéene kaay Enrique la fësal ca xët wu njëkk wa na ndigal jib na de waa Real de Madrid jël nañu ndogal ngir jënd doomu Brésil bii di Enrique Enrique moomee nag Real de Madrid saytu na ko xool na ko xam na ne gone gu football am ci moom yaakaar la Marca nee na fan yii di ñëw Real de Madrid dina yóbbu offre ngir jënd ko Paris tamit dafa bëgg gone ji waaye Real li ñu bëgg moo di njëkk ca Paris ngir mën a am gone googe waaye journal bi nee na doomu Brésil bi nag fukki at ak juróom benn képp la am maanaam seize waaye kat ma ngay def ay jaloore ca Palmeiras journal bi nee na ku ko jënd ku nekk nag doo ko mën a indi léegi seson deux mille vingt quatre deux mil vingt cinq lay door a majeur maanaam lay door a am fukki at ak juróom-ñett mën a jógee ca Brésil dugg Europe moo xam Real la wala Barcelone yéenekaay jël as yéenekaay Vinicius la fësal ca xët wu njëkk wa prolongé Vinicius nag yokku na contrat bu yàgg Real de Madrid képp ñoo ko siiwalagut waaye yokku na ko ba atum 2027 journal bi nee na salaire bu bees bi sax commencé na caa jot ci weeru juillet bii ñu génn kon Vinicius yokku na contrant bu yàgg Real ko ko siiwalagut képp Vinicius nag ma ngay wax nee na moom jógee ca Real de Madrid nekkagul ci xelam jamono jii li mu bëgg moo di yàgg ca club boobee boobee ndax club bi neex na te waa club bi bëgg nañu ko yëg na fa boppam waa Atlético de Madrid tamit ñoo ngi ci journal bi ñoom nag ñàkk nañu lu mu gàtt-gàtt dix-huit millions d'euros wala vingt millions d'euros li ko waral moo di toog gi ñu toog ci Ligue des champions bi demuñu ci huitième de finale ya loolee tax na ñàkk nañu xaalis bu bari moo tax journal bi nee na bu ñu yeggee ci weeru janvier faw ñu jaay ay gone ndax ñoom dañoo soxla xaalis muy waa Atlético de Madrid journal bi tamit ñëw na ci Xavi may tàggat waa Barcelone ba baaxul ca Europe ndax kat Xavi ba mu yoree Barcelone ak tey jii football na fukki match ak ñett maanaam treize match yoo xam ne ci coupe d'Europe la jëm moo xam Ligue des la wala Ligue Europa waaye ñetti ndam képp la ca Xavi am kon Xavi projet doxul ca Europe loolee la journal bi xam xamle ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport président wu Barcelone bi di la Laporta la fësal ca xët wu njëkk wa waaye journal bi nag Barcelone gépp lay wax ak nee na leen li leen war moo di jóg tontu gaañi ba noppi fexe jël ay coupe ci saison bi ñu nekk waaye Barcelone googee nag ak ña ëmbul liggéey ba tey la ñu gën a wóolu Xavi seen xel dàq Xavi nekkagu ca nee nañu tey la ñu ko gën a wóolu waaye Xavi nag ña ngi koy ñaax nee na ñu ko gën a la jëmbat fulla te gone yi nga yor tamit dangay fexe ba ñu am confiance te loole yaa koy def ci ñoom xamal leen ne leen ko ngeen mënta gagné amul loole bu ko gone yi xamee rek ku ñu jàkkaar lool ñu am ndam ci sa kaw liggéey boobu moo ko desee waaye Barcelone nag ci mercato bii ñu dëgmal dina dolli dooley club boobee lu ñaari ngir ñu ñëw jàppale Xavi ci li des ci saison bi Barcelone jël nañu ndogal yooyee waaye seen ñaari capitaine yii nag soo moytuwul dinañu jugee ca Barcelone te door nañu waxtaan ba muy Gérard Piqué ak Jordi Alba ñoom ñaar ñooñee ci weer yii di ñëw soo moytuwul dinañu juboo ak club bi jógee foofee ca Barcelone ñu jugee Esport jël Mundo Deportivo moom it waa Barcelone la fësal ca wu njëkk wa jamono ji nag lal nañu ay pexe ginnaaw bi ñu lajjee loolee la journal bi xamle Barcelone ginnaaw bi mu ñàkkee Ligue des champions bi lal nañu ay pexe pexe yooyee nag bokk na ci saf yi ma leen di tàggat nee nañu ko tey lañu la gën a wóolu ñu la wujju dàquñu la loole na nga ko xam waaye waa Barcelone ñetti bëgg-bëgg la ñu am mu di lan Liga Santander bi dañu ko bëgg jël Coupe du Roi dañu ko bëgg jël Ligue Europa dañu ko bëgg a jël ndax Barcelone ay projet am jël coupe da ca bokk ren jii li ñu bëgg moo di jël ay coupe kon teg nañu ndëgg sërëx yi nga xam ne moom la ñu bëgg ci li des ci saison bi waaye club Barcelone bu ñu yeggee ci mercato bi maanaam dina ñu jënd ñaari gone bokk na ci latéral droite bu wex xatt ak milieu de terrain bu wow kong waaye journal bi nee na ci kaw nag ñu yomb ndax Barcelone jamono ji bëggul joueur bu seer joueur bu yomb la bëgg ngir jënd ko yóbbu ko foofee mu jàppale Xavi ñu jugee Espagne wutali itali wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa AS Roma ba José Mourinho la fësal ca wu njëkk wa ñoom démb ca Finlande la ñu demoon fekki fa Helsinki dóor ko ñaari bal benn ndam loole nag am na solo Abraham moo njëkk a dugal El Sharawi dugal waaye José Mourinho nag su bëggee qualifié faaw mu dem ci lu Ludogorets am fa ndam loole su amul rek du qualifié muy José Mourinho ak waa AS Roma défenseur u Monza bi tamit moo ngi ci surnal bi di Pablo Marin Pablo Mari nag Arsenal moo ko moom abale ko ca sa waaye démb nag tuutee tee mu dugg ci giraawaali li ko waral moo di dafa demoon ca supermarché ba ngir di dugg maanaam jënd lu mu yóbbu ca këram ca jamono joojee nag benn waay moo dugg ca supermarché ba waa ji nag àndul ak xelam mu dugg agressé fa ay nit moom Pablo Marin sax ci ñu ñu agressé la bokk waaye Pablo Marin dara jotu ko waaje tamit rey na fa am nit ka rey moo di caissier bi maanaam ka toogoon fa ñuy joxe xaalis ba ci kanamu Pablo Marin waaye Pablo Marin moom dara jotu ko muy défenseur ca Monza Arsenal moo ko able foofu ñu jógee Corriere dello Sport dem Torino fekk fa Tuttosport Andrea Agnelli la fësal ca wu njëkk wa moom nag mooy président wu Juve journal bi nee na ko ku foor nga nag jàmbaar dëgg nga sa club bi moo ngi ci ay jafe-jafe yéen ñëpp xam ngeen ni yuufe doxul ci terrain bi amul ay ndam waaye loole taxul nag mu découragé ndax journal bi nee na tey jii dina dajale ñi nga xam ne moo leen di fay ñooñee nag toll nañu ci cinq cent personnes ñëpp lay dajale moo xam joueur yi la dirigeant yi ñay bale ak ñay fobeere ñëpp la Andrea Agnelli di dajale xamal leen ne leen club baa ngi ci jafe-jafe waaye yéen ñi ñëpp tey laa leen gën a wóolu ñu jugee Torino wutali Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport Antonio Conte la fësal ca wu njëkk wa ngelawam nag moo ngay xeeñ ci Juve li ko waral moo di Antonio Conte contrat la ca des ca Tottenham bariwul saison bi ñu nekk su jeexee rek daanaka contrat day jeex tàkk foofee te jamono ji waa Juve ka leen di tàggat di Massimiliano Allegri doxul Juve nag li ñu bëgg moo di bu saison bi jeexee te doxalut ñu dàq ko indi keneen Antonio Conte nag ñoo ngi koy bàyyi xel su fekkee yokkul contrat am ca Tottenham waa Juve dàqu ñu indi ko foofee mu jàppale leen waa Inter it ñoo ngi ci surnal bi ñoom nag démb seen capitaine bi di Skriniar